ñuy euh, jéggalu ci yéex a tàmbali bi waaye du tere nag bàkk ba rek dafay jëpp mi bàkk bonne journée altine baat ji ma lay doon tey nag ñu yegg si dañ dëpp ak El ay dara Aidara tey moom mbiri dafa xaw a kii de tey dama tardé sama tardé bee sama tardé aha bee sama tardé tey kay tardé bu mag lañ tardé ayo dañoo xaababal kon ñu def rek lu dul euh, jukki li nga xam ne yéen a kaay dañu ko xëy da xëñ la tribune la ñu koy dooree am nañ la xëy fa tribune yéen a kaay la ñu koy dooree tey ak lu jëm nag ci wàllum Abdoulaye Wade mi nga xam ne gars yi mi ñu ngi jóge ci parti di dem daal la mu xam ne mooy euh, gars yi nañ dem. nee ñu dem waaw nee na nañ dem daal. maama wax maam nee na loolu sax moom moo gën ci moom. moom moo gën daal maanaam ci ci ñoom sax na gaa yi dem ñu mën a toog ak seen candidat. mën a waxtaan mais. Euh, maître Abdoulaye Wade ba tey ma nga woon nag di jaale ji euh, metre ay Aïssata Tall Sall mais yëkkati na fa tam ay kàddu yoo xam ne ñu bëree bëri xëy na xamuñu ko woon Abdoulaye Wade nee na bi nekkee ci nguur gi. Mhm. daf daf doon woo maître Aïssata Tall Sall ngir kooku ñëw mu def ko premier ministre wala ministre affaire étrangères. moom maam moo wax loolu. mais ndaw si daal. ngorom moo ko mayul woon. mu bàyyi mu ñëw foofu mu ngoram moo ko mayul woon. moo ko mayul woon dañ dem ci réew mi wax. réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Omar Sarr mi nga xam ne yekk na lu mel ni xeme. Mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye. Omar Sarr moo ko yekk lu mel ni xeme lu mu jàpp rek daal mooy daal Souleymane Ndéné Ndiaye daal lii mu def daal. Mm. Euh, ci kaw gàttal daal du yëfu gor. ñoom ñaar ñoo ñoo war a sànni tànk yooyu ñoo àndoon démb waaw kay jéem ñoo waaw nee na daal ni mu ko defee daal ñaaw na le populaire moom ñëw ak ñun ci euh, Ousmane Tanor Dieng ak waa APR yi nga xam ne dañuy xamle ne mhm. euh, waa PS dañu war wax ba xam dinañ jàppale Macky waaw wala déet wala déet xam ko ñu féeti waaw Ousmane Tanor Dieng nee na ñoom buñ demoon ba am lu ñuy wax Macky lañ koy wax waaw duñ ko wax coxo coxoy <laughs> le quotidien yéen kaay ñëw ak ñun ci euh, Sénégal bokk bi nga xam ne war na koo bokk ca guerre ba ca Yémen. Sénégal waaw. Macky sàll nag fi mu nekk ni le moom jàppal ni moom tànku jàmbaar yi di soldaar yi moom euh, yëkkati na leen. yëkkati na waaw ci kaw gàttal kay dañ faa war a yebal ay ndaw. dañ fa war a yebal ay ndaw la la la solo yéen kaay ñëw ak ñun ci. ndey dikke di coopération bi dox ci diggante Sénégal ak Arabie Saoudite. Ah, ba du sëy ba daa neex. waaw kay privé saoudien bi ci boppam sax pare nañu. Mhm. ngir daal investir indi seen xaalis daal fii. Euh, ci réewum Sénégal ci réewum Sénégal. ba tey baax na teraanga day yokk rek. grand place waaw grand place ñëw ak ñun ci Cheikh Kanté. Mhm. mi nga xam ne dafa demoon tribunal ak Mamadou Lamine Diallo. fu mu mujj. Cheikh Kanté mujj gagné. am na ndam waaw. ci kaw parce que àttekat bi daal daf ne Mamadou Lamine Diallo daal li mu waxal Cheikh Kanté. ci coowal ne ko trans beek ñàkk nañu ñetti téeméer ci ay. liggéeykat ak mm. loolu lépp amul. kon wax waxi nax saxaay rek. waaw kay. grand mm. place ci xët ma ba léegi ko miin lool kar kanamam di maître Mbaye seen ancien

Euh, ñoo am ak moom problème. yow jamono ji kon mi ngi ñuy déglu. ma nga ñuy déglu waaw bërëb. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci Sud Quotidien nee na feetu pak bi moom daa nar tàng lool. ndax. Euh, combat yi. Ah. Balla Ëmma Zos Ama tafaatin ak Guy gi. lépp ci feetu pak yi la ci affiche voilà. enquête yéene kaay la dikk tey. ñëw ñun ci indépendance yi nga xam ne nag daa nar a jax-jaxi tey rek ak mbëri. mbëri Tafatine Guy gee ngi ni Zos Ama Balla Gaye Ëmma. kon ëllëg ay combat lañu ko nar a jëmmaale. ëllëg ak ginnaaw ëllëg yëpp daal ay combat la moom amul développement parce que amuñ temps tey amul a ko yàq <laughs> dañu koy sms lem rek ba altine jàmm salaam kese waaw ba tey baax na mu mel ni kon El Hadj Ahmed Aïdara jox euh, dig daje kon altine nes ki 7h45 ma dikkat yi jukki leen xibaar yi ba mu jàppandi